indi len ay garab yu muccu ayib kep ko xamanteni da nga yor jangoro yi nga xamanteni mom lay laay bëgg lim dawal nga seti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yo xamanteni garab original la muccu ayib kep ko ko jëfandikoo insha allah da nga daldi taggo mbollem jangoro bo xamanteni nekkon nacc sa yaram hémorroïde bu fekke dang ko yor demal nga seti ko bu ne da nga yor bolotement dawal dem ci gaaw bul ko wàcce new katan nak amu ci morom kep kum ci tet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko insha allah katan force ngay yor accord euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante nii moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi bi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinquante cinq cinq vingt deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni dangay yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. Illaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala sayyidil mursaliin sayyidinaa wa Muhammadin sayyidil mujaahidiin وعلى آله هادين المهتدين ومن اهتدى بهادم إلى يوم الدين mbokki téléspectateur ak téléspectatrice yi suivre si leen di Farokh TV fu ngeen mën di nekk tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu jiital ci nuyoo boobu suñ caméraman bi di Boubacar Bari ak suñ technicien bi tabaarakallaahu di Aliou Dem yéen ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla li nuyoo bi làmboo yàlla defal leen te moo nekk jàmm seen émission suumu tasiru dellu siyaar fa tabaarakallaahu nara àndaat ak ci ñi ma waxee rek feebar dafa am ñaar dafa am feebaru xel xol waaye am feebar boo xam ne feebaru jëmm la feebaru xol ya xel yi tabaarakallaahu boobu docteur Cheikh Ousmane Touré boo xam ne daal na doomu aadama boo woowee docteur Cheikh Ousmane incha allahu rabi bu jëflante yow feer boobu yàlla naa la tàggalee moom kan mooy Cheikh Oumar Touré dañ bàyyi ak waa Russie ñu dugalal leen ko ak ay garabam su paree ñu dellu si waat léegi léegi ci deuxième partie bi incha allahu rabi. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne. Assalamualaikum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fii ci ndakaaru indi leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo insha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga yor demal nga seeti ko bu da ngaa yor bolotement ma dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca moroom képp kum ci jàppantet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kàttan force ngay yor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat ci juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo wàll li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré moom daal am na ci garab goo xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarlook docteur Cheikh Ousmane Touré am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah danga nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. numéro boobu yéen di tappe ci écran bi mooy numéro am wala ku bu ngeen ko ci waxee fa tabaarakallaahu da ngeen ko jot feebar bu leen dal su ngeen ci jëflante moom yàlla mën leen ci defal sutura incha allah tey nag mbokk yi seen émission Soumou Tassourou mi ngi ñëw ak yéen tey di wax ne buñ xeeb lenn lenn lu baax buñ ko xeeb waaw alxuraan wax na ne alquran wax na ne wa ma min xayrin fa inna allaha kaana bihi alima yàlla ne lépp dengan ngeen def ci lu baax lu mu tuuti tuuti man yàlla xam naa ko man ci lu baax rek defal muy weeru koor muy lurut weeru koor gis nañ ne weeru koor yi bi jotee ñëpp danañuy góorgóorlu ci def lu baax ñii danañuy joxe suukar su koor ñii jël tàndar ma joxe ñii jël xaalis joxe am ñu day soral seen bopp jël ay ay tisi ay jasneer ñii di joxe or ñii di leneen loolu moom dootul war su koor sariya nag du ko bañ ndax joxe la te danay defaral diggante waaw sariya moom lépp luy defar ak diggante rek allah moom bañu kon nag yu baax yooyu nga xam ne ngi ci sonn di ko def loolu nag tey su mu tasiwu si la ñëw ne nañ ci góor góorgóorlu buñ ci xeeb dara luñ ci mën nañ def même bu yor koor yu jàllee dafa am benn wali yàlla xam naa tey loolu mooy nekk émission bi ñu koy tuddee Abou Mansour waaw Abou Mansour dafa amoon doom ju baax léegi nag bi mu demee ba dee di ko dikkal mi ngi sukkuraat moom Abou Mansour muy jooy di jooy di jooy di jooy ba doom ji jaaxle doom ñu ne papa looy jooy mu ne ko wallaahi jaaxle damay tukki foo xam ne xaw ma ko te bu ma demee du ma wàññeeku mooy bàmmeel waaw kenn xamu ko nu mel te boo demee doo ñëwaat di nettali naan ñeeg ñii la mel mu ne ko lu laa xalaat de mu leer ma ne tey faraay fanaani lu laay xalaat di jooy ñu toog rek paa bi génn àddina. don ju tonga di ñaan yalla ne ko yalla ma lay ñaan sama papa nim nekké barzak nga won ma muy ñaan muy ñaan ba sa 4e jour ba yalla wan ko papa ci nelaw don ji mooy laaj papa moy abu mansour mané ko papa no ba mel papa ji ne ko lu ngeen ci doon dégg dess na ba ngeen nek adina ñu leen ko doon jangal lu ngeen ci doon dégg rek des mu ne ko fekkee naa fi daje naa fi ak ay siis yoo xam ne ku leen dàq laaj ku leen daq enquête mu sàmm waaw waaye nag yàllaa ma dimbale mooy Munkar ak Nakiir question bu ne posé ni ma waaw kon tey ay siis nangam ak siis jóob ak siis nangam jàll siis nangam am na ñu leen gën a garaaw fu boo amee ñoom boo xamee ñoom audience li ngay tiitee bés dana jot nga xam ak malayka yoo xam ne audience ñoo gën a garaaw mbooleem siis si ci àddina bi boo leen dajale woon tabaarakallaahu da nga am ñaari siis yoo xam ne ñoo gën a garaaw ñëpp loolu dañ nga ko laaj waaw Abu Mansour ne ko ñun ñun ñoo ñoo ma doon mu ne ko nag lenn ma dimbale mooy damaa daje buur boo xam ne buur boo xam yërmande la waaye su nekkutoon loolu laaj bi ma laajoo xam ne konoon tey force ma dugg safara mu ne ko lan laa mu ne ko dañ ne ma dund nga 60 ans 70 ans kon 70 ans la dund mu ne waaw ñu ne ko 70 ans yi si ci liggéeyal yàlla mu ne leen bi ma amee 10 ans laa commencé di xool chaque jour damay xool chaque jour damay xool chaque jour damay xool bu naa fi. 60 ans noonu laa dundee noonu laa dundee ba ba ma dee musu ko bàyyi ñu ne ko loolu yàlla nanguwu ci dara kon léegi koor gi ak naa bi léegi eseg na ñu ne ko ak lan mu ne xaji naa Makka 30 fois te aji Makka ko def yoon ko sa aljana man aji naa Makka 30 fois te ci dara yàlla nanguwu ci dara kon boobu échec na ñu ne ko loo yaakaaraat mu ne bu dee alal li ma ci joxe ay milliards la yoo xam ne ma ko joxe te jëm yàlla tax ñu ne ko yàlla nanguwu ci dara mu ne nag kon léegi moom xaaral ko daal jëlee yóbbu sawar yàlla ne ko déedéet doo xaaral mu ne ko ah wax naa la samay woor nga ne nanguwoo ma wax la samay aji màkk nga ne nanguwoo. ma wala sama samay sarax nga ne nangoo kon kay mooy quran yalla ne ko de ne ko kon ma ngi ni say loxo yalla ne ko benn bes don nga don nga romb ci yoon nga gis fa lo xamne man na gañ nit ku sa deug gañ mo xam bëccëg la wala guddi way ku ko gisu dal bu ko deugé ya, gañ nga ne xaaral ma toxal li bala gañ nit yalla ne ko loola nga toxaloon noona pour moytu mu lor nit yalla ne ko loola laa nangu ci li nga jëf mu ne mbaay ke ne jël leen ngeen dugal ko aljana kon lu bax buñ ci xeeb dara lu mu gëna a bëri bu ci sukkandiku xolal ki ñaata at la or 60 ans la or ñaata yoon la aji makka 30 ans ñaata la ala sarax ci alal ay milliards yalla ne ko nangu ma ci dara way xolal fi ko yalla musalee mooy lu ndaw li nga xam ne mën naa gaañ doomu aadama muy ab bant wala aw xeer wala dara wala aw weñ mu toxal ko pour bañ mu gaañ nit yàlla ne ko li nga def lii laa ci nangu ci loolu la yàlla jël wal ko kon wa maa tafaalu min xayrin fa inna allaha kaana bihi alima sadaqallaahu l-aziim loolu moo nekkoon émission bi kon ba suba ci beneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ni mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën xam mbooleem loo xam ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fii ci ndakaaru indil leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo insha allah da nga dal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon na sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko bu dee da ngaa yor bolotement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca morom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko insha allah kàttan force ngay yor d'accord uh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom uh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf uh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarlook docteur Cheikh Ousmane Touré am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphonam am la 75 da ngay def deux cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu ilallahi wahdahu yanaalul